Diembaye euh, Ndiaye maa ngi lay nuyu voilà nga nekk secrétaire général euh, adjoint bu syndicat national des corps de la Sonacos fan yi bind ngeen benn lettre lettre bi nag da ngeen ci alerter euh, njiitu réew mi ci jafe-jafe yi nga xamante ni actuellement sonakos mi ngi koy traversé est-ce que si yaatal mën nga ñu expliquer largement problème yooyu am ca Sonacos waaw xam nga Sonacos moom fi mu ne dafa nekk ci jafe-jafe parce que li tax mu ne ci jafe-jafe mooy dafa amul matière première ren pour liggéey te matière première boobu muy liggéeyee gerte la gerte gi nag dafa am njëkk ñaar ba ñetti problème yoo xam ne moo tax Sonacos mënu ko am fi mu nekk bi ci njëkk mooy li ñu wax ci tonnage ci réew mi ne moo fi am amu fi mooy un million cinq cent mille tonnes boobu moitié bi sax ñun dañ jàpp ne amu fi te loolu bu ñu defee un million bu ñu nee un million cinq cent mille tonnes dafa am dafa am décret bu defoon ci deux mille dix bu waxoon ne bu gerte gi ëppee un million de ton dañuy gis ne usine yi dañu mën a consommer lépp donc il faut mu am partie boo xam ne dañ koy jël exporte ko donc mais dañuy xaar bu boobaa fekk bañ defar jël jiw jël usines yi am gerte après li des ñu door a envisager pour exporter parce que bala ngay jaay bala ngay laax jaay nga laax lekk donc loolu mu moo tax bi ci njëkk Sonacos euh, gerte gi jafe ci marché bi déjà léegi loolu li mu jur mooy prix bi cher na parce que quatre presque mille quatre cent et quelque bien que Sonacos sax ñu ngi koy jënde mais gerte gu ñu jënd la ñu gisoo parce que tout simplement li gerte gi déjà génn na conteneur yaa ngi port barki dem bi ñu demee suñu usine Dakar bi conteneur yaa ngi foofu du jeex du xaaj graine décortiquée mu ngi génn réew mi di dem te loolu lu muy jur Sonacos bu amul gerte loolu problème la jiwu bi bu amul déwén problème la ba pare bo bu amee gerte di ci liggéey tourteaux yi muy génne tourteaux yi muy génne yi muy génne. Mm. du du daf ko war a jaay ay usines yi defar aliment ay enema ak yeneen usines yooyu xam ne li ñuy fabriqué ci aliment presque vingt à trente pour cent yi aliment de bétail ra te loolu sax naa ko moo koy produit di leen ko jaay bu loolu amul même day impacté foofu léegi nag loolu lim njëkk a jur mooy Sonacos ña doon liggéey di ay jeunes si la ñuy xam ne gerte gee doon tax ñu liggéey. Mhm. boo xoolee ci Sonacos mais ñoom ñëpp ñu ngi parce que deux mois ngi nii amuñu gerte Sonacos lim jot a collecté yëpp yëpp yëpp yëpp ba tey jii nii seize mille tonnes la. seize mille tonnes mooy fukki junniy tonnes ak juróom-benn alors que ñun ñu ngi doon wut ñaari téeméeri junniy tonnes. ci ci ci at mi lu ko lu lu mu néew néew loolu lañ soxla woon jëm kaw donc loolu problème la boo xam ne moo tax ñu génn wax pour attirer attention état bi beneen bi ci des Sonacos biñ ko état bi jëlee ci ABBA pour ren pour ren pour delloo ci loxoom dafa def effort yu bëree bëree bëri ñaamaar def na ci xaalis yu bëri léegi mais bi usines yooyu comme fukki at yi mu nekkoon ci advance dafa usines dafa màggetoon dañu soxla woon xaalis pour ñu mën a beesalaat chaudière yi ak yooyu ndax énergie bi ñuy jënd ci Senelec dafa cher Sonacos ay centrale la am di produire boppam courant léegi centrale yooyu yëpp dañu màgget il faut usine bi ñu amaat centrale yu bees loolu biñ nga xaymaa toll na ci vingt milliards yoo xam ne dañ ko waroon am ci lu jàmm pour ren defaraat loolu pour mën a dox léegi loolu chef de l'État biñ ko ci biñ koy waxoon na direction bi dinañ ko jox depuis daaw ci gouvernement ba la joxoon na ndigal pour ñu joxe ko mais ba léegi vingt milliards yi mënul génn léegi ñun ñun xamuñu fan la tàggee comme pousse nañu pousse pour au niveau de la na ñun ñu jóg parce que ñun defaan kër gi moo ñu tax a jóg jóg attirer alerte chef de l'État alerte opinion bi yëpp pour ñu xam ko ko defee ñu mun a dem ci loolu parce que chaudière yi ñàkk dafa day tax di liñ di ñu ut di ko raffiner suñu raffinage bi ci li ñu war a defaat à niveau ci la bokk léegi diwlin bi muy génne li muy am li muy am ci ay pertes en cours de de de fabrication loolu li mu màggata sax loolu dafay inflé ci suñu coût de revient loolu moo tax suñu diwlin moo gën a seet tuuti diwlin jërëm bien que gerte la mais dafa tax mu ñu am prix yoo xam ne tey ak concurrence bi diwlin bii jóge ci bitim nu mënuñu jaay suñu magasin yi tey dafa fees dell ak diw ñu nga fàgg lu mat huit mille et quelques tonnes yoo xam ne huile raffinée la nit ñi duñ ko duñ ko jënd parce que dafa gën a ëpp prix de revient yi moom la ñuy concurrencer yooyu daal mooy ñu jànkonteel loolu moo tax fan yii yëpp ñu génn ci presse bi pour ñu jà pour gouvernement bi ak président bi jàpp ci xam ne foofu la toll pour ñu jàpp. Euh, léegi mais yéen liggéeykat yi am nañ ay jafe-jafe wala amuñ ay jafe-jafe ñiy liggéey ci biir Sonacos. wax naa la ci mhm. biir léegi bi mu ne nii déjà am na deux mille liggéeykat ñaari junni liggéeykat yoo xam ne dem nañ tooge. parce que dem nañ toog comprendre mm-hmm. waaw parce que mooy saisonniers yi liggéey ci gerte gi. Mm-hmm. gerte amul defaloon nañ leen ay contrat mais biñ demee deux mois amuñu gerte dañu obligé arrêté leen parce que amuñu da ngay xëy toog xëy toog kenn mun ci fay nit donc loolu moo tax léegi nag li des kay mooy permanent ya fa des te bu xëyee du ñu luñ liggéey dañu nar a ba déwén loolu c'est un gros problème bu mag a mag a la ci gestion. kon su la déggee yow da dëggal agriculteur li ñu wax ñoom Cheikh Tidiane Cissé parce nee nañ ren campagne gerte moo amul ci dëkk bi tonnage yi wax amul te li ci amul kas néew ñu chinois yi xam ne ñoo ëpp moyen de ëpp ñu sax moyen Sonacos mais ñoom seen charge moo bëriwul xam nga ki nga xam ne charge am day mën na jënd gerte gi sa kilo mille francs mhm. mais koo xam ne da nga ko war a nal ko def lépp te boo war a jëfandikoo pour di ko jaay mënoo jënd gerte gi pour bi nekk ndax sa charge malgré que loolu Sonacos dem na ba quatre cent ci ci jënd gerte pour bëgg a jënd rek mais gerte gi dafa amul ci dëkk bi liñ fi déclaré xaaj bi sax amul loolu mooy problème bi. léegi euh, Modou Diagne Fada euh, directeur généralu Sonacos bi moom ban taxawaay la am par rapport ak situation bi nga expliqué. Modou Diagne Fada xam nga dans un premier temps fi ñu ko mën a jugé. Mhm. mooy bu nawet bi ñëw dafa am loo xam ne moom la a njëkk a def. Mhm. mooy uti xaalis pour pour mun a pour mun a bu gerte ku koy indil gerte mu fay la moom andi na gerte ba teg ci usine yi xaalis mais xaalis bi mu ngi foofu tëdd léegi leneen li ci des bu fekkente ne état bi def na loolu maanaam gerte gi tegu na ci yoon mu am gerte. léegi usine bi ñu rénové comme mu jaaj fa da bu boobaa bu liggéeyul dañ ko mën a mais ki nga xam ne daf da nga ko jox liggéey lan ca waroon def ci côté am def na ko yow lan nga war a def nga defal en tant que son patron mënuñu ko jugé ci ci loolu parce que ñun ci la ñu gis def na effort pour uti xaalis même def na effort sax ren pour jënd ay camion yooyu pour suñu ñun suñu achat yi bopp yi suñu agent yi dem di jënd man di roñ gerte gi di ko yóbbu ci point yu ñu yooyu yëpp pour accélérer affaire bi mais dañu gisul gerte guñ jënd en réalité loolu moo tax moom mënaguñu appliquer appuyer ci di ko juger dans la mesure tegaguñ ko ci condition yu tax mu mën a ñu di ko juger pour xaar ko loolu mooy problème kon daal da nga gis ni euh, responsabilité bi mi ngi ci côté état wu mais mu jàpp da amul waaw fi mu ne nii ñu ci toll. Mm. responsabilité état bi la. parce que même bu fekkoon ne tey dañuy juger Modou Diagne sax mooy yoon nañ koy juger sax état bee ko fi teg donc même bu fekkoon moom la ñuy juger nii tey. état moo ko fi teg mais moom àggaguñ ci di ko jugé donc état li mu war a def bu ñu ko fi tegee ba pare la deful loolu léegi nag problème problème yi ñu am nii à l'instant T son gouvernement bi la moom waaw moom amul na ba na waaw léegi euh, lettre bi su weesoo lan ngeen fas yéene def pour. Euh, xam nga en fait bi du du trois lettres xëy na dañu na jot kii bi boo ko xoolee ci suuf dañu expo exposé la point de presse bu ñu doon def la. Mhm. bi nekk Dakar. d'accord c'est une conférence de presse a organisée bu ñu defee ci usine yooyu ñu séddale ko journaliste pour ñu nekk ñu bokk lu ñuy wax. Mhm. mais loolu mooy li nga expliqué nañ ci foofu parce que baa nga foofu expliqué nañ ci détail li ma la wax nii yooyu wax nañ ko foofu. Mhm. Mm. yeneen état bi ci topp nag ñun bu ñu gisul lu ñu xam dinañ ci ñëw te loolu boobaa dinañ woote wax ko. Euh, pour yow lan moo mën a euh, suqali euh, Sonacos lan moo ci solution exactement. solution lu suggéré état bi voilà. so état bi moom dafa am loo xam ne li mu war a def la defagul rek am naa ne ren moom gerte gi moom dem na amatu fi ah moom loolu moom lu nekk la ba pare kenn mëntu ko corriger parce que dañu annoncé prix gerte gu fi amul donc gerte ga ñu ne jëkkante nañ yóbbu ko boo demee fële ci Sonacos suñu usine bi. terre yi ñu luye foofu port bi mu nga fees ak ay compte ay centaine milliers de conteneurs yu jëf gerte kemb mu ngi foofu donc gerte gi jénne bloqué xanaa bu fekkee weesu pour ñu bloqué kii bi exportation bi li fiy jot ñu jéem ko jënd ginnaaw loolu ñu teg kii bi organisation kii commercialisation arachide ñu toog acteurs yi ñu organiser que ñu def ci texte ku nekk respecté li mu war a respecté ñi nga xam ne dañuy exporté te nekk bitim réew xaar usines yi bu ñu defee ba pare ba ba liggéeyloo nit ñi léegi à partir ñoom ñu jënd ci usine gerte gi mën a dem su ko defee état bi am ci ñu liggéeyloo ay nit ñi ñu gis ci seen bopp mais chinois yi ñu koy jox kiiwuñu du ñu indi sax amul kenn apport chinois yi dañuy ñëw bu ñuy ñëw marchandise la ñuy indi Chine jaay ko centenaire buñ ko jaayee centenaire génn xaalis bi dem jënd ko gerte def ko gerte dugalaat ko ci conteneur yóbbu ñu jaar sax ci banque yi ñun vraiment loolu dafa kenn mënu ko supporter lool te société bi mënuñ ko récupérer ak njàmbaar boobu ñu ci def yépp ba pare pour lu gën a néew ñu bàyyi ko muy tëjaat lool baaxul. kon daal yow gis nga problème mu Sonacos yi yëpp li ko indi mooy chinois yi jënd gerte gi. waaw parce que ñoom concurrent xam nga état mun la concurrent ci état chinois moom day jàppale agent mhm. da leen di jàppale jox leen alal pour ñu mën a liggéey parce que ñoom ñu dëkk foofu mhm. donc bu ñu génnee fu ñu mën a dem dañ leen may doole boo xam ne fii Sonacos mënul dëkk ñoom mun nañ jënd gerte mille francs du leen wàññi dara mais Sonacos quatre cent cinquante ni ñu jënd nii sax day métti ça pose problème voilà day posé parce que tey dama lay expliquer boo bëggee defar benn litre huile brute. Hmm. maanaam huile diwmi ba lañ koy mën a boo ko nalee rek di nga soxla deux kilos cinq wala trois kilos pour def benn litre diwlin brute léegi loolu déjà rek yaa nga mille mille neuf cent. yaa ngi presque mille huit cent mille huit cent cinquante. Mhm. donc donc mille waaw yaa ngi presque mille trois cent cinquante ba mille quatre cent muy litre nga doon raffiné ak ay kóom def ci carton ak yi ngay jënd yëpp day jege ay deux mille loolu ah, Sénégalais lambda ko jënd. Euh, Thia Mbaye Ndiaye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. maa ngi leen di jaajëfal leen tam merci. voilà may fàttali yow yaay secrétaire général adjoint bu syndicat national des corps gras de la Sonacos jërëjëf. waaw jërëjëf Sonacos jërëjëf.